lu tax ndox mi gën di cher di gën di yokk ci biir Sénégal ñu ne ñun waa forum social ñaari at yi ñu weesu li Sénégal di dund tey ci biir Ndakaaru ak li ko wër jëm ci ndox mu xaw a cher te sellaay bi xaw a am problème teewaay bi itam xaw a am problème ci yenn heures yi loolu doon na loo xamante ni bett nu ndax waxoon nañ ko ñaari at yi ñu weesu bi Sénégal di négocier ak Suez contrat bi nga xamante ni moom la waroon signé ak benn délégataire te ñuy wooyee euh, contrat d'affermage maanaam dënk nit mu jox sénégalais ndox mi nga xamante ni ndoxu Sénégal la bi loolu amee ci jamono dañ ne woon ñun d'accord ñu woon ci ni gouvernement bi négocier woon mbir moomu ndax dañ ci gisoon ñaar ñetti mbir yoo xamante ni dafa teyoon xel benn bi mooy que ni kiñ ko bëggoon a dénk ak kiñ ko dénk kiñ ko doon waaj a dénk donne nag kuréel goo xamante ni li ñu xamoon ci moom doonul woon euh, euh, yu rafet fi mu ci ay réew yu nañ ko dañ ko fa ici aussi ci situation yooyu doonoon na kuréel goo xamante ni mbootaay boo commencé ci capacité koom-koomu te loolu di que ni weer ak wala ñaari weer la teg bi mu commencé signé bi mu commencé exécuter contrat bi beneen mbër mi nga xamante ni moom la doon jonkonteel ci contrat ci euh, négociation contrat bi dafa ñëw jënd ko mooy Veolia donc nga tànn mbër boo xamante ni nee nga nee na la man maa mën ci mbër yi nga tànn ko dénk ko drapeau bi mu jël làmb ji ñaari weer ñetteel bi ki nga éliminé woon ne mënul doon mbër ñëwu daaneel mbër moom est-ce que yaakaar nga ni sa tànneef bi jaaroon na yoon dañuy poser question est-ce que yaakaar nga ni tànneef boobu jaaroon na yoon beneen bi itam mooy que ni kooku noonu dafa ne woon boo leen ma denkee ndoxu sénégalais yi dinaa ko jaayee environ quatre cent francs naa wax noonu 3, 3, 399 francs le mètre cube disons 400 francs parce que Dougon <coughs> ci woon taxi yi am kenen ku ne ah man de boo leen ko 288 mun na ko ko ki doon négocier ne non non man du ma ki nga xamanteni li mu proposé mo gëna new ci mètre cube damay tànn ki nga xamanteni ni li mu proposé mo gëna cher pour ñun ñu né mais loolu trahison sax la li ma la dénk ne la wutal ma ku ma koy jox saa yu ma ko soxla nga tànnal ma koo xamante ni bu ma koy jox li ma koy fay moo gën a cher li keneen ki di laaj pour jox ma ko loolu nan lañ ko mën a expliquer mais ñu gisoon ni ci yooyu jamono leneen mbir bi ci laxasu woon mooy que ni kooku noonu dafa am lu mu jëfan jëfalante woon ci diggante moom ak ki nga xamante ni moo doon conduire processus bi muy benn responsable ministère bi loolu lañu ñu waxoon loolu ñu tuddee woon ñu soupçon de corruption ndax bu may wootee làmb nga jaar sama kër may may ma ñaari xaru tabaski may ma benn oto di ma fàttali nag ne ah ci làmb yi dina bëgg naa ci nag jël jël drapeau bi mais dinaa bàyyi forcément xel ci yow ndax ñaaru xaru tabaski yi nag xëy na du mbaaxee nag moo tax nga jox ma ko oto bi itam xëy na rek du. sa euh, baax moo tax nga jox ma ko am na loo ciy séntu loolu dañ dajale woon ñun ñëpp yóbbu ko nag yóbbu ko Cour suprême yóbbu ko ay ARMP ne leen mais xool leen mbir yi ndax jaar na yoon jaay ndox mi li gën a cher nanguñu may la ci biir appel d'offre loolu noo lañ koy tuddee loolu nag moo nu topp tey nun téyooyu jamono ji dañ ne woon loolu bu amé forcément fi ñu jëm moy que ni ndox bi dina yokku engagement yi ñuy waaj a ci dina ko def ci contrat bi investissement du ko def benen troisième bi bi ñu gisoon moy que ni dafa amone conflit d'intérêt ndax kooku noonu moy ki tabaxoon jumtuwaay biñ doon KMS 3 ak retardu 2 ans de livraison bi liggéey bi pare ministère bi réceptionné ko kan la ko livré ki ko tabax la ko livré celui qui a construit, c'est celui qui, à qui on a livré l'outil de KMS3. KMS3, on a que samedi le connaît. ba sa capacité de production n'est pas encore atteinte a des gens qui dafa am loo xamante ci liggéey bi pareegul. monsieur forum li ñuy xaar ci forum bi mooy que ñu fait ci en Afrique yépp ñépp nangu ne ndox moom meelu yàlla la ndox moomeelu yàlla la du marchandise du bien boo xamante ni dañ ko war a jaay bien commun la ndax moo ŋànk dund bu nit ki di gane si àdduna li ñu koy njëkk a soxlaal li ñu koy njëkk a jox li ñu koy njëkk a teertoo mooy ndox nit kooku itam buy génn àdduna di dellu ci maam yàlla li ñuy njëkk a pour jóobal ko boromam mooy ndox lepp lu fi meññ ndox nga meññ yow mi wax ak yow yow mi wax man ndox a tax nga yeewu mën a sell julli dem ci ñun di wax comme ni mu commencé amee ci nous tugal yi ak ci Amérique latine yi ñu fexe ba ndox ci sunu constitution yi ñu bind noir sur blanc ndox ndox même la bo xamante ni papa yi kenn moomu nga balma yaay kenn askanu aduna gi mom moko mom ndikam nak askan be ko mom ñi jiital ci sunu askan yi ñu doon suñu responsable dañu fexe ba momelu yalla googu ku ci soxla man caa yegg ci anam yi yi yi rafet yi gëna yomb doon suñu forum social bi ci forum mondial de Lobby, ci lolou lañuy woyé nit ñi bu boobaa itam ñi nekk ci réewu tax yi ñi nekk ci réewu euh, euh, biir dëkk bi biir réew mi ku ci nekk na yow indi say say jafe jafé wala indi sa expérience amna ci seen ben na tang bo xamanteni def na ben documentaire bu baax bo xamanteni bëgg nañu bu suñu gan yi ñëwé joggé amérique latine amérique du nord europe ñu fexé itam be produit bobu ñu ñu mun gis dina am itam ci ñoom ñu ñëw indi ay documentaire yoo xamante ni ay témoignage yoo xamante nañ ko mën a mais daal sunu objectif ci forum bi mooy que ni multinationale yi fi nekk di wër ndox pour mun ko considérer comme téléphone bi maanaam loo xamante ni marchandise la ñu xamal leen ni bëgguñu faa yéeg ak ndox ndax dox mooy li nga xamante ni mooy tax jaamu yàlla moo nuy taxa a sell moo ñuy tax a dund